waaw CRD bi comme ni ngeen ko xamee euh, réunion la boo xam ne dañ ciy waajal màggal gi di ci waxtaanee li nga xam ne noonu lañu ñu war a euh, taxawee ngir màggal gi ñu mën ko màggal ci jàmm secteur bu nekk nag day jël parole wax euh, li nga xam ne noonu nga nar ak foo ci toll ñun mu doon ci ñun occasion boo xam ne dañ ci doon profiter pour mën a wax ak comité d'organisation bi wax leen taxawaay yi ñu war a am ci màggal bi waaye tam sàkku ci ñoom ñu jàppale ñu ci wàllu yeete bi ndax dañ gis ne jafe-jafe yu bari ñu am li ci ëpp yeete moo koy saafara ndax dañu gis ne jafe-jafe yooyu bokk na ci ñi nga xam ne dañuy weddi ne feebar bi am na ba nga xam ne duñ jël benn matuwaay même masque yi ñuy wax duñ ko takk am ñoo xam ne sax dañuy dem ba ci soo leen bëggee defal des ñu bañ donte sax dañuy am màndargay feebar bi am ci ñoo xam ne itam dañuy euh, euh, bañ mesure barrière yi maanaam mesure yi nga xam ne mooy tëralin yi nga xam ne ku ci jaar mën nañ njortu ne mën nga mucc ci feebar bi yooyu ñoom dañ koy bañ donc lu ci bari ñu gis ne xëy na suñ ñu jàppalee bañ gën a yee nit ñi ñu gën a xam ni mbir yi tëddee ak gën a ubbi seen bët ci feebar bi xëy na dina am solo lool ci xeex bi ñuy xeex feebar bi loolu nag tey waxtaan nañ ci ak comité d'organisation bi xamal leen yéene yi ñu am ak jafe-jafe yi ñu am yéene yi mooy ñu fexe ba ñëpp di takk masque respecter li ñuy wax mesure barrière mooy bañ di nuyoonte tey sorente lu lu ëpp mètre te bañ aussi di joxante loxo bañ aussi di sëqat ci ay ngelaw li nit di ko noyyi yooyu yëpp waxtaan nañ ci comité bi xamal leen fiñ ci toll comité bi nag dalal suñu xel ci ne ñoom itam gis-gis biñ ci am ci taxawaay ñoom boobu gis-gis lañu am te it ñoom dinañ ñu jàppale ci yeete bi ñoom sax amoon na lu ñu tënk ci yeete bi ba nga xam ne ñoom jàppoon nañ ne euh, loolu ñu tënk dinañ tàmb tàmbali di ko doxal ci biir Touba ak li li ko wër ngir nit ñi gën a farlu ci taxaw ci xeex feebar bi kon muy loo xam ne ñun dañ ca am mbégte ndax comité d'organisation bi su ci dugalee loxoom ci yeete bi amaan na nit ñi gën a gëm seeni wax gën a jàpp tamit ci digal yiñ leen di digal kon loolu dinañ yaakaar ne fan yi dina am soppiku koo xam ne dina am solo lool ci xeex feebar bi ndax jafe-jafe yi comme ni ma ko waxee rek li ci ëpp affaire communication la maanaam nit ñi bañ wala ñi ñi ñi ñi nga xam ne dañ naan feebar bi amul ak yooyu suñu ci kilifa yi jàppale joxe ci ay ndigal xamal nit ñi ne feebar bi am na te nii lañu ñu war a def ngir aar suñu bopp su ci nit ñi jaaree nag amaana yàlla dimbali ñu fii ak màggal gi yëpp xaw a wàññeeku jël nañ ay matuwaay yoo xam ne xëy na dinaa ko mën a leeral fii ndax matuwaay yu dëppoo la ak li nga xam ne comité bi organisé moom moom la jàpp mooy ñu fexe ba euh, li wër jumaa ji ñu fexe ba attroupement yi fa doon am ndax commerce yi fa daan nekk ñu ñu jëlee fa commerce yooyu maanaam li wër jumaa ji yëpp mu bañ a am benn jaaykat wala oto yi fay gaare di jaayek wala fo ndax foofa da daan xaw a dem a dem ba mel ne marché te soo waxee marché rek wax daje ak mbooloo yooyu te yooyu bëgguñ ko ko ñu fexe tam ba jumaa ji mu am buntu yu ñuy duggee ak buntu yu ñuy génne pour nit ñi bañ di buuxante ci bunt yi wala di daje ci bunt yi ñu fexe ba tamit rang yi am ci biir jumaa ji rang yi mu am ñuy taxawu rang yooyu ñi war a dem ci bérébu siyaar yi ñu leen di saytu ak fexe ba defal leen rang yoo xam ne du buuxante te ci biir bérébu siyaar yi tam ñu fexe ba nit ñu bari bañ di duggaloo ñu fexe taxaw ci ba nga xam ne su lim duggee su génnee beneen lim dugg te comme ni ma ko waxee bunt yi ñuy duggee bañ a bokk ak bunt yi ñuy génnee ñu fexe tamit di désinfecter jumaa ji ak bérébu siyaar yi maanaam fexe ba di ko pomper ngir doomu jàngoro bu fa nit indi bañ ko fa bàyyi donc loolu dafay am solo trop ci liggéey bi ñu fexe itam ba kër yi nga xam ne dafa wër jumaa ji muy kër yuy dalal ay mbooloo yu bari ñu fexe ba kër yooyu ñu teg fa ay kuréel wala ay daayira yoo xam ne dinañ toppatoo nit ñi nañ fay duggee ak nañ fay génne ngir mu bañ a nekk buuxante ci kër yooyu ndax kër yooyu ay kilifa dañ fay nekk ñu leen di siyaare donc fokk ñu teg fa organisation te raxasukaayu loxo wala ay gel ku ñëw mën a raxasu wala ñu defal la gel te mu bañ a am buuxante te ñu fexe ba rang yi bañ a nekk ay rang yu seere nit ñi di buuxante te ci biir kër yooyu kilifa yi ñuy siyaare ñu bañ di bàyyi nit ñi di agsi ba ci seen kaw ndax nit ñi léeg-léeg dañuy buuxante ba ba dal sa kaw ñu fexe ba doxalee diggante boo xam ne dinañ dànd nit ñi bañ a euh, maanaam saafonte trop ak ñoom ndax loolu itam mën na exposer ki nga xam ne moom lañuy ñuy siyaare kon ci bërëb yu demee ni gare routière yeeg yooyu foog ñu def fa ay dispositif lave-mains ku wàcc ci oto mën a am foo raxasoo wala ñu laalal la gel nga dugg ci dëkk bi te it oto yi bañ di accès ba ci jumaa ji oto yi mën nañ yem ci li wër corniche bi ndax oto yi suñ dee wàccee nit ñi ci ay mbedd yu xat ak rythme bi ñuy ñëwee mën na dem ba mbedd yooyu day fees dell ak nit waaye su fekkee dañ leen di wàccee ci bitti corniche bi nit ñi dox tas ci mbedd yi mooy tane oto yi ñëw wàcce nit ñi ci benn barab ñëpp ñëpp daje fa mu nekk mbooloo kon loolu aussi day am solo ñaan nañ tamit su màggal gi jeexee ñu fexe yombalal nit ñi ñibbi bi yombalal nit ñi ñibbi bi mooy ñu fexe ba dégager yoon yi bu ku bëgg a dem rek ñu mën a dem ndax dëkk bi moom lu nit ñi gën a gaaw a demee mu gën a wàññeeku ci ay mbooloog yooyu mu gën ci xeex bi ñuy xeex feebar bi donc am na nag yeneen i euh, matuwaay yu ñu jël yooyu comme ñu ngi ci waxtaan daanee la waxtaan woowu maanaam tënkaguñ damay bàyyi rek bu fiyoo ki fan suñu demee ba comité d'organisation bi tënk ba joxe ndigalam ci yooyu waaw poste avancé yi comme ñu ko daan defee dinañ def ay post avancé ci quartier yi ay post yu doy ndax quartier yëpp nañ fa def ay post te ren jii nag dinañ ko gën a organiser pour que post avancé yooyu bañ a doon ay béréb yoo xam ne nit ñi dañ fay daje di fa yàgg wala di fa buuxante ci kaw loolu dinañ gën a organiser poste avancé yi indi fa personnel bu doy ci post bu ci nekk ba nga xam ni nit ñi duñ fa yàgg te duñ fa buuxante loolu moom ñu ngi koy waxtaan ak suñuy naataangoo ambulance yeeg yooyu yëpp dina ñëw xam naa teel na ñu wax ci loolu mais xam leen ne matuwaay yi ñu war a jël yëpp ñu ngi ci di ko sàkku ci ministère ak ci suñuy partenaire suñu demee ba jëmmi jamono mën nañ defal le point defal leen le point wax leen fiñ ci toll wax leen ambulance moom du manqué ndax ambulance ministère des réquisitionné ambulance yi am ci dëkk yi ñu wër ak ambulance yi nga xam ne dafa nekk ay ambulance yu bees yu indi ko ngir jàpp lañu ci couverture sanitaire